alors donc euh, man maa ngi tudd Moussa Ndoye euh, euh, yor nekk service technique commune bu Bargny tey yor bureau bi nga xamante moom la ñu wax bureau cadre de vie de la commune. alors ngeen di xëy tey jii nii dugg ci dëkk bi surtout li nga xam ne moo jëm si route secondaire bi di sensibiliser nit ñi si li jegewaale également lii di route nationale bi lu ngeen ci jublu lan ngeen nar def. waaw pour précision rek par rapport ak question bi. Euh, fi may tàmbalee d' abord mooy préciser d' abord accès yi nga xamante ni moom la ñu tànn euh, pour def lu ñuy wax opération de désencombrement euh, ñu gën ci en fait gën ko wodd di ko tuddee opération d' embellissement donc li sabab bi mooy dafa am lu ñu nemmeeku ci doxalinu dëkk bi mooy que installation yoo xamante ne vraiment c' est irrégulière maanaam dëppwul ak yoon képp kuy képp kuy képp kuy doomu aadama di citoyen rek war nga xam ne lépp lu ñu def ci espace public ak les voies publiques wax dëgg ne yàlla war nga approcher les communes comme ça ñu accompagner ci mbir mi bu fekkente ne mën donc ñu nemmeeku ne effectivement installation yi nga xamante ne mu ngi ci dëkk bi finalement dafa jur anarchie alors ci le maire nag maintenant am taxawaayu gannaaw dañu dénk te bokk na ci ponk yi ñu dénk mooy taxawal dëkk bi taxawaay bu mucc ayib donc moo tax ñu lance opération bi opération d' bi pour vraiment taaral action yi ma la wax. axe yi ma wax nag yi ma wax ni euh, dinaa ci cité muy axe poste courant Ndiolmane poste courant Missira euh, euh, route marché mardi bi ak euh, route camp militaire bi ak le mur de l'Estade donc axe yooyu mooy axe principaux yi nga xamanteni effectivement tan nañ ko pour def l'opération de désencombrement alors bi ngeen xëyee également da waxtan ngeen lenn ci askan wi te bés bi yéen ko japp fek ñetti fan nga bëggoon dellu ci wat est-ce que amna ay réticence ñu dëgeur bop wala da ngeen defoon ay sommation yi nga xam ñom ñoko ñoo pour ñu wajal seen bopp

est-ce que am ngeen impression que duñu jot dégg nañu leen te nar nañu jëfee li ngeen santaane. waaw loolu tam euh, lu ñu mën a comprendre la parce que ma jàpp naa ne euh, c'est une première à opération de de déguerpissement d'embellissement jàpp naa c'est une première à Bargny amaana nit ñi amuñu culture boobu parce que lu ñu tàmm di def mooy que occuper les voies publiques et les espaces publics sans autorisation ba pare yaakaar ne loolu mooy buur te it buur bu ñu koy dégg bu ñu koy wax ci dëkk mooy une euh, dafa méngoo une organisation. Nous nous organiser la moy ku ci lu ci afa place mais comme li nga wax dama ci rek de toute façon ñun du sommation Nous waxtaan jot daf nañ ko bi nga phase sommation bi té it ko c'est sur la base du recensement buñu joté def ba euh, recenser manam occupation domaine public yépp ci biir dëkk sur cette base également nous donc sommation te même ci biir sommation ça, sax am na ci loo xamante itam ci kaw yërmande amé nañ taxaway bi moy que ñi nga xamante par exemple même nañ ne même cette installation c'est dans l'irrégularité mais amna ñu ben insertion par rapport ak milieu bu ñu évoluer donc amna ci cas yo xamante ñu sax xaw nañ leen épargner ci wàllu woowu loolu lépp nag dañ koy def gannaaw tam mairie dafa am vocation sociale yërmande mo war ñu amé bobu taxaway est-ce que tey jii nii ku bëgg stationner ku bëgg tabax lepp lu jëm ci wàllu construction am nga am nga possibilité def ko.

mais bokk ni sensibilisation tey bi mooy ñoom tamit ku ciy namati daf lu mel noonu maanaam tey wut souf muy sable de dune ak wala sable bu mënti doon andi ko ci espace public yi pour waajal sa ay construction wala nga andi ces béton dañ leen nga rapproché wu de la